te kooku sëñ Babacar moo ko wax kon nag am na ñu nga xam ni gëm na ni dee am na gëm na ni dekki am na waaw te yàlla nee na yiw mooy lan du rek taxaw naan allahu akbar il faut nga gëm ni am naa nga gëm ni dee am na te dekki dana am nga gëm ni malaayika yi maa leen di yónni sama service sanu ne nga gëm ni téere yi wàcc yépp man maa leen wàcc nga gëm ni yonent yi am yépp sama yonent laa nu fariqu bayna ahadin min rasul lool mooy suñu difficulté ñun en tant que musulman Il ñun yonent yépp la ñu reconnaître mais am na ñu nga xam ne jusqu'à présent ils considèrent que Mohammed est une imposture ñun suñu suñu suñu saaga sax mën nu fayu si seen yonent parce que yonent yooyu suñu ay yonent la waaw ñun rek en tant que religion ñoo tuddee Youssouf ñoo tuddee Ibrahim ñoo tuddee Isa ñoo tuddee Moussa ñoo tuddee Aaron ñoo tuddee ñëpp Ismaïl il faut nga gëm ko laa nu fariqu bayna ahadin min rusul ñëpp suñu ay yonent la waatal maal ala hubbi zawi qurba yooyu yëpp si yiw yàlla dafa indi aaya bu gudd bu nga xam ne bii mën nga si tënk lu bare bare te aaya bu sëñ Moustapha fonkoon la sëñ Moustapha xilaasu sa al alxuraan rek la fonkoon am na si biir aaya lu doy lu mu si wax danaa si ñëw léegi wéetal boroomam di jàng kaamil di digle sarti ci tariixa cheikh Seydi Jamil moo di toolam te moo di tontam te moo di ndigalam eskey jamilu seydil jamiilu bu waxtu teewee mu ñëw ci jàkka ji nuyoo ba toog du wax ca kaw moom du xàqtaay ban ràññee baatam lu dul ci yàlla ku sopp seydi jamil defal ni xilaafa gi daldu fas la nekkoon di dem ba fuuta ka ñëw ba gaaya te doora tempati ba ñëw ti waawan ñu naan du jàllati mu nga jëmiilu ku sopp Seydi Jamil defal ni wattul ma naat yeen lu xew ci ñoom la day ñëw fi yow daldi dem fa ñoom seetal ci Mahmoud mu mel ni poone bi ñuul di weex daal di toñ yaa ahlu i ñoom Moustapha si bu leen di déglu xawlul insaan fi shayqukum wa xutbukum wa mumiidukum nan jëf sil jamiilu ku sopp Seydi Jamil defal nii ñu màggal ko ñun sunu yónneen di taw ci ummi di taaw ci ab xoolal ma loolu kazaaka cheikh kazaaka mawdo kazaaka mbay si sàkka jamiilu ku sopp Seydi Jamil defal ni aya allah du maa ngi lay ñaan alxaaji Mansuur guddal fanam dollil ko mbooloo nu bokk booloo teñ bañ di juuyoo amin ci loolu du yàlla moo wax wa yasala al ulamaa wa yahtadi kon laa ji leen daal alxaaji Mansour laa biir na teey na ci wàllu yàlla ku sopp Seydi Jamil defal ni alhamdulillah may ki tax ma jóg tey way jamilu mooy taawu mbay si ci maali mu leen di merloo ayaa laa nu fariqu bayna ahadin min rusul ñëpp sunu ay yonent waaye yàlla dafa ni wa aatal maala ala xubbi zawil qurba ne soo demee bay may bul fekk benn mbubu bu nga xam ne bii sol ba mu ràpp xam ne sànni rek si des nga dem di ko maye déedéet waaw ne na dem seet lu nga xam ni bëgg nga ko sopp nga ko su fekkee yaa ngi koy maye day xoj ci soxol nga maye loolu de soo ko dee maye na nga may ku la jege gis nga ay bopp man ka man ka déggee si kurus bi si kurus gi laa ko déggee waaw dama toog benn bi sëñ Mansour woow ma ni ma fekk ma VDN ci suba teel ay huit mun ma fekk ma VDN xam nga su woowee doo sax nuyu doo sax na nga def yooyu Mansour foo nekk fekk ma VDN ma taal sama oto fekk VDN ma ñëw VDN ñu ne ma dem na Rufisque ma woo ko mënu ma fekk ma Rufisque mun ma woo naa ma su du sëñ Abdou yéen ngeen fekk ma Rufisque ma dem Rufisque mu ñëwee Rufisque si kër benn chef de quartier bi nijaayam la fekk ma ñëwee mun ma sama nijaay moo génn àdduna daf ma dénkoon boppam ni su dee naa ko ñu ngi koy sang nag waaye en attendant noonu nekki ñu daal toog nekki ñu toog tuuti maam su bu sëñ Abdou dugg ci jóge Tiwaawan ñu ñu ndekkee noonu rek chef de quartier bi ne la ñëw ni sëñ Mansour xale yi kat neenu doo jullee seen papa ku day na sëñ Mansour góor gi génn àdduna di ne yaay si yi ni ko doo suñu ma wiccaxal sa loxo te raxasu ma wiccax sama loxo mu ni Mansour wiccaxal sa loxo ñu raxasu mun ñan leen dem dafa naa njaga boobu temps nga fa ñu ñëw dugg si jàkk ji munuma moom su ma nekk laa béykat munuma séddaleel kaamil bi te nga ubbi ko ma seddale kaamil bi ubbi ko ñu jàng kaamil bi ba mu jeex munuma joxal Mansour mu defar xutbu bi mu def xatmu bi mu def xatmu bi ñu toog tuuti ñu ne sang nañ ko ñu ngi génne néew bi mun jóg leen ñu dem jóg leen ñu ñëw ba teg néew bi doomu néew bi ñëw ni sëñ di jullee seen papa musuma gis lu mel noonu ci àdduna léegi rakku néew bi ak magu néew bi wax ni sëñ moo koy jullee ñuy xëccoo musuma gis lu mel noonu ci àdduna sëñ Mansour déy ma ni ma tey damay summi sama mbubb sëriñ bi nag sol sama mbubu lébu waaw mu ne dinaa ko defante ak ñoom ba mu sës sëñ Mansour nekk ak ñoom di ko defante di génne ay di génne assis di ko wax di ko wax def ba gaa ñi teg néew bi bi ñu néew bi mu jullee ko bi mu ko jullee ba pare mu ne ma yàgg Mansour dem leen ngeen suuli ko mais xale yi jël seen papa obligé tout le monde ñu dox ba armeel ya

ma dem foofu bi mu fa saa jege mais maa suñu ma kon nag suñu paree jaxal bi nan nan koy def fekk sëñ maa su dafa jox jaxal bi mu de kii mooy sama jaxal ma ni ko man bu ma yóbbu jaxal bi de mun ma doo yóbbu jaxal bi <laughs> mun ma def ma ni ko nan delloo sëñ maa su mu seet kenn ko yóbbu maa su sëñ ma ñemee wu ma loolu sëñ maa su dafay yóbbu kon day pétaat suñu kaw man ni ko kon nun sàkk pexe bi nu paree ñun nan dellu joxe jaxal

photo sëñ Babacar bu rëy nekk fi sol nag benn ngam nu grand bu amee so photo sëñ Babacar ñoo takk nag seen noir bi nag taxaw man sëñ Mansour yaay yaay wax de man man man ma xaw lu mel man ka mais qu'est-ce mun ma yow yaay wax mais man du ma wax sëñ Mansour yow la désigné pour nga nekk tête mission bi ma ne ko ok problème ma wax wax wax dem ba si digg bi rek

mu jékki-jékki xale yi génne seen lu lunette teg ci suuf ñuy toog di toog di toog ba si yàgg sëñ Mansour nekk si ñu dindi seen mbaxane daal sëñ Mansour di dem di dem ba si yàgg rek ñu toog ci suuf bi ñu toogee suuf tam ma ne ko bul ñaan bàyyil ma ñaan soo paree waxtaan bi rek jox ma ma ñaan bi mu paree waxtaan bi mu jox ma ma jël ñaan bu gudd gudd di leen ko dóor di leen ko dóor ba ñoom ñëpp ñu seet guy ñu daal di ñëw sëñ Mansour joxe jaxal bi ñu kii sëñ Mansour moo leen ko jox jaxal mais nag am na lu ñuy wax affaire léegi lu ñuy wax naan xaw ma ay ay sangal waaw ah waaw sangal waaw man leen sëñ Mansour nag ne lii mooy jaxalam mais nee na ngeen ko jox sangalam dañ ko jël si

Amoun ou an euh, diplomasi kon figya sivil mwa fiyan. Se yman sou nok kontan, etc. Se yman sou ni, se yman sou bou, se yman pou ni dey denrou. Tua amoun mwen yo do dem to orfi. Matro fi tout la jounen, nyo and dem rifisk. Bine mwen rivou, moun mwen apen nan mwen kontan si yo. Nan mwen mwen khamne ni, kham wosan valeran. Moun tou kousi bayi chou khalo tem, gen ne koulous ki, ni mwen ki koulous se yman. Se yman wakal wakal wakal.

ñu daan ñëw nag sëñ Mansour may ma kurus gi ma tas ak sëñ Habib sëñ Habib eh mais kurus gi mais foo jëlee kurus gi ma ne ko sëñ Mansour moo la ko may moo ma ko man ma mais pourquoi ko ma ne ko dama laaj ko ko. Ah. ni que mais papa dama gis benn kurus boo xam ne mosul ma gis sëñ si jëmee la amee ko mu ne ko waaw mu ne ko mais ma tax nga ko sa yoon nekku si mu ni que non seulement jox naa ko kurus gi mais jox naa ko secret kurus gi mais mu ñëwaat si waa atel mala adaq bi zawil qurba soo dee maye da fekk lu baax a baax nga may ko xam ni soo ko dee maye daa ko maye ba pare day ko mais gis ni góor yi su ma àndee moom amatul kurus su ma tooree mu ne moom ma ana kurus la <laughs> sunu su ma demee bay ñibbi guddi man ni nga góor gi maa ngi ñibbi mooy daal solo ma ñaar ma ñaar man ko waaw waa kurus gi nag mun naa abal ma ko ba su ëllëgee su ma ñëwee laaj ko mu ni ma ma ñëw bés tànk yi bés que neexal kay mu ni ma ëllëg moom amul benn problème soo ñëwee rek ma jox la ko sa ëllëg sa mu ñëw ma koy naxante moom naxante moom xamu yenn saa yi nekk si xaal soo ko bëggee wax daal da nga koy jëkk nat ñoom ñëpp a gaaw si ban xaal na ñu nekk damay natt xaal bi naa toog trois heures de temps di étudier nan laa koy fan laa koy fan laa koy duggee quoi fan laa koy aw mais nag su ma ko joxee rek donc donc waa tellement ala xubbihi zawil qurba na nga fekk li gën si li nga yore nga may ko fekk ku la jege nga may ko لن lan moo si القربى zawil qurba وعد المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين نينا وعد على ذوي القربى واليتامى نغا فك خول يالا ni muy waxe dafa jëkk indi tawhid man amana billahi wal yawmil والملائكة والكتاب والنبيين دفع إندي توحيد بباري إن ريلاسيون سوسيتا وآتى المال على خبي صوري جوحي كم غي جوحي أك لم غي جوحي وليتامة نغا فيك نجري مو جوكو والمساكين كو أمول دارا مسكين نغا جوكو وابن السبيل كو أحمني كي مي جمسيون من من نان دفع مني كي مكة Euh, dama suñu ajee ba pare xam naa ni sa ay mbokk yi fatigué nañu seen xaalis jaay nañ si ngay dem nag màkk ramasser leen indi leen indi leen sa kër ñu ñu noppalu tuuti wala koo xam ne kii muy jëm si yoonu gudd nga jox ko yóbbal wam na sabili wasaa ili na koo xam ne kii dafa loru bay tàllal loxo bi si mbedd mi di ñaan yàlla nee na kooku am na jër si sa alal wa fi riqaabi ak ko nga xam ne kii dafa nekk si muumu jàpp nga ñëw jël sa alal bindi ko affranchir ko goreel ko comme ni si Cheikh Ahmed Tidiane ni mu defoon Cheikh Ahmed bi muy takk soxna dafa dem sa marché d'esclave jënd fa ñaari jaam goreel leen ba ñëw si penc mi ni ñaari jaam yi maa leen moomoon goreel naa leen libre nañu waaye dam leen bëgg jël comme soxna jàmm donc ñoo bokk Cheikh yëpp ay jàmm leen du wa fi mu ñëw goree leen ba pare ni nag dem leen li takk su leen di takk bi nga xam ni moo xew si jamono laa leen di takke munoon na wax ne maa leen maa leen moomoon ba ci maa leen jënd mais comme libre nanu day appliqué charia cang bi nga xam ne bii moo xew si jamono cang boobu laa leen di takke waaw mu tuddee kenn kii